de lancer un appel tam pour les retrouvailles di wax ne li rafet na trop di sant tam euh, bu baax a monsieur le ministre parce que comme ni ko mun nañ waxee c'est la première fois ñu gis un ministre visionnaire ci suñu profession bii moom barki dem bi ma toogee gis mu déposé benn projet de loi d'orientation des transports, euh, ñu examiner ko en conseil des ministres ba xalaat ba am yaakaar ni ko adopté voté ko à l'assemblée je crois que kooku mi ngi xencu transport mi ngi koy gëstu te xam na li nga xam ne moom la ñu ci war a jubanti fas yéene aussi comme li ma waxoon keroog ci réunion bi ñun aussi chauffeurs yi ñu xam ni waaye waaye dina nekk ci ñun gàcce ñu ubbi gaaru cër yi ak niñ ko jooye ak niñ ko laajee ba pare ñu sàggan ba virus bi à travers nu mu tasaaroo ci réew mi. kon nañ jël suñu matukaay dañu jël suñu te ko suñu loxo nañ jël suñu matukaay lépp loo xam ne ay mesures la yu nguur gi édicté ñu fas yéene cee jàmboon léegi nag dina waxtaan ak Matar ak ñi fi nekk ba bépp chauffeur ñun bu ñu gis wala apprenti ko masque ñun dañ la fa la contravention wax tamit ni képp ku takkul masque duñu nangu dugg ci gaaru bi. Fallou ñu ngi lay félicité gis nañu li ñu fekk fii dal na suñu xel lii la ñu bëgg responsabilisation waxuñu ne rek dañuy assouplir transport bi rek lu neex waaye def déedéet dañuy assouplir waaye nag dañuy continuer nekk ay responsable continuer respecter prescription yi nga xam ne ministère de la santé jël na ko mooy setal sunuy loxo setal suñuy cër porter suñu ay masque respecter distance loolu ku ko def mën nga mucc ci feebar bi donc ñu ngi leen di félicité xam ngeen président joxe na 600 millions. pour gare Cher, 600 millions euh, gare Cher, Rufisque dina 6 millions donc si vous avez une ñu jotee euh, euh, référence banque dinañ allez 6 millions pour que vous a continuer li nga xam ne bi ngeen gën ko mën donc loolu moom ci la des du Nous jotee compte aussi 2000 masques pour pour pour que chauffeurs yi les regroupement yi. ak eh, ñi dem té mënuñu am masque wala ci sen masque yaqku té ay masque lavable donc lolu aussi président de la république moko wax andil nañ ay thermoflash ñu tollu ci 10 thermoflash ak ay gel defena gel yi ay centaine de gel bouteille de gel mu ngi fi donc dinañ leen ko jox ngeen xamne di ngeen mëna gëna continuer di def liguey